Hmm? ndax direction de l'emploi am na si taxawaay bu rëy rëy ndax lii nii nga xam ne ni directeur de l'emploi jàppale na jàppale na ko jawbaas ba tax mu am kàttan ba mën a dem parce que mbas mi fi mu toll nii su fekkoon ne amuñu dimbal boo xam ne ni bu ñu dimbalee si euh, mbas mi defe naa duñ mën a fay suñu emploi kon bu fekkee ne euh, direction de l'emploi def na ko ci turu euh, ministre Dame Diop mu jóge si turu président de la république kon gàcce ngalaama bàyyi na xel ak jeunesse am bàyyi na xel ñi nga xam ne nii emploi lañ soxla kon loolu su amee ñu ngi koy jaajëfalee président de la république di ko jaajëfalee sag gi ñuy sagoo muy euh, ministre Dame Diop di ko jaajëfalee directeur général aussi yi nga xam ne ñoom ñoo ñoom la boole dajale. ndax dama naan toujours nañu fexe bay am di ñaanal ñi nga xam ne ñoom lañ may ndombal tànk si njaarim ndax nit boo amee di ko sagoo. bu bu amee doole rek sa sagla yow bi fi ne te it direction de l'emploi yàgg naa judd leneen ak leneen yàgg naa judd mais doomu njaaram ñu ngi siy door di bénéficier wu parce que mosuñu koo xam mais ay doomu njaaram bu ñu demee ba toog mel ni Pape Fall toog foofu noonu di xalaat ay doomu njaaram di xalaat ay jeunes euh, jeunes Jurbel kon bu fekkee ne am na kaa bu mag boo xam ne def na ko si ba tax ñun ñu gis si njëriñ bu mag ak yeneen jeune gis si njëriñ bu mag kon boog duñ def lu dul leen ñaare di leen gërëm di leen sant